en termes vraiment de de de de toog bañ a d'accord tey teewul ñu am espoir que ne dañuy dem rupture Moi, dès le début dès le début ñu ñu baal ma am na ñuy wax ci ginnaaw suñu mënee déglu ñu baal ma rek parce que ça nous damay obligé di wax fort pour ñu mën ma Moi, moo dès le début dañoo ne. Nous avons may circonstances atténuantes gis ngeen ñu déclaration Nous di le président Bassirou Diomaye Faye gis déclaration bi ñu féliciter ñi nga ne nommé ministre ñu gëm na profil bi féliciter leen encourager leen tamit ndax sacerdoce gis ngeen boobu ba léegi ñu accompagner yenn yi kon boobu ba léegi position bu ñu am mooy nañu encourager nit ñi pour ñu dem vers la rupture définitive parce que sénégalais yi loolu rek la ñuy xaar xaar ñu leneen mais depuis boobu ba léegi yàggatul le temps que ñuy joxe délai d'observation mu am koo xamante ne ñëpp di ko xaar ci résultat mu jub kenn xamul lu tax di attaquer nit ñi di wax lu ko neex di def lu ko neex muy le premier ministre Ousmane Sonko moom comportement boo xam ne daf ci wane ñett benn bi mooy respecté wul les institutions de ce pays boobu mooy bu njëkk ñaareel bi moy respecté wul les sénégalais ñettel bi moy luñ ko denk attanu ko il n'a pas les capacités pour être un premier ministre bu si dina len jox firnde yi respecté wul les sénégalais respecté wul institution yi amul capacité nek premier ministre luñ ko jox attanu ko. respecté wul institution yi nag su ma ko waxee yéen ñëpp seen xel day dem ci mbirum coowum déclaration de politique général bi coow la boo xam ne ñu ngi koy gis boobu ba léegi gis nañu ñoo xam ne sax ñu ngi siy bëgg a profité doon défendre régime bële léegi ñuy wut transition pour défendre régime bu bees bi naan ay juriste la ñoo ay lii la ñoo ay lële pour mën a jox dëgg. lo xamantene ne premier ministre def nako ko gis nañ lu ne mais Sénégal kenn duñu fi jàngal lolou yëpp li nga xamantene ne am moy déclaration de politique générale buñu bo boo bëgg a boole ak birum assemblée nationale bokul amul ben relation bokul pourquoi assemblée jeune assemblée nationale règlement intérieur l'Assemblée nationale su un problème mbirum député yi députés député yi ñoo war a gérer qui seeni mbir la mbirum déclaration déclaration de politique générale constitution est consacrée en son article 55 te bu leen yem article 55 de constitution la constitution. Vous di dem ba xool fan lañ La constitution constitution dafa am titre du président de la république titre 3 du gouvernement titre 4 de l'opposition titre 5 de l'assemblée nationale titre 6 si dire du gouvernement il faut l'article 55 Nek. prérogative du gouvernement jox premier ministre il faut l'article 55 constitution daf ko ne yow suñ la nommé da ngay dem déclaration de politique générale devant l'Assemblée nationale c'est une exigence constitutionnelle koku deful lu ko constitution wax mu dem di xol lu xew assemblée nationale da fay joxe ay ordre voilà la gravité de la question xol lu ko constitution wax mu dem di yurndu la mo xam xew assemblée nationale lo xamné ne nekku si moo tax bu ñu jaawale dafa am déclaration de politique générale bu nga xamante ne ne constitution moo ko teg mu am loo xamante ne ne règlement intérieur assemblée nationale moo koy ger léegi nag dañ ñëw ci assemblée nationale balaa may leen di firndeel ñett yooyu ba leen wax léegi assemblée nationale bi ñu bëgg amaguñu ko te xam ngeen ay député yu yu xarañ mosul ñàkk Sénégal législature bu mës a am dinañ leen ne député bii macha allah député bii macha allah député bii macha allah mais luy manqué mooy action de groupe yëkkatee ndoo dóorandoo loolu mooy assemblée nationale. ndax tey soo xoolee mbir mi ñan ñoo ko yëkkati tudd nañ ci Mamadou Lamine Diallo tudd nañ ci Théodore Monteil tudd nañ ci Doudou Wade tudd nañ ci Guy Marius Sagna. ñooñu ñëpp xam nañ ne ay député yu baax lañ yu am yu xarañ lañu d'ailleurs dama bëgg a taxaw tuuti def témoignage si ñaar si ñoom ba ñett ba ñeent ñoom ñëpp sax soo leen bëggee mais Mamadou Lamine jàlloo bokk na man personnellement bokk naa ak moom douzième législature bokk naa si ñu mu encadré mën naa wax sur les questions économiques bien que man en dehors le fait que ma nekk juriste am naa diplôme en sciences de gestion mais beaucoup de guidés, ma guidé muy nit ku généreux nit am xam-xam député ne législature bu ñëw mu fi Doudou nationale est-ce que tu as été le premier sénégalais le premier député de l'histoire politique du Sénégal Beaucoup ko yaa mës a bëgg a taxaw ne nañu leeral alalu assemble nationale ba nga nekkee président commission comptabilité muy koo xam ne ba mu nekkulee député boobu ñu nekkuñu député ba mu koy nekk nekkuñu ko mais ba léegi à chaque fois dara am dina def effort gëstu wax leen lan la ci xalaat kooku dafa waroon toog assemblée nationale warul jóge assemblée nationale Théodore Monteil xam ngeen ko ñoo bokkoon aar Sénégal mu doon koo xamante ne ne xam ngeen xarañam ñu mel les sénégalais yi dañ leen war liste ñu Guy Sagna bu muy def nationale ñëpp teg nañ ci seen bët dañ ko félicité encouragé ko bien que d'accord ici, et c'est normal en démocratie ne pas être d'accord c'est une très bonne nouvelle parce que jàpp naa ne député bu wara yakamti exécutif ñew nga contrôler ko di yow ya wara wax premier ministre bul ñew yow toogaloo exécutif assemblée nationale nga togal peuple bi nga togal mais ñom ñep suñu woné lolu alerte depuis le début mais luñ doon xaar moy mu am une action d'envergure parce que falsifier règlement intérieur assemblée nationale lu grave. dafa melni sénégalais yëpp tok teunk ci dara yow nga tok dugg sa bureau wala nga tok fula neex nga dem imprimerie changer lolu nga xamantene sénégalais yi def nañ ko parce que assemblée nationale c'est la représentativité nationale Non, lay tekki donc ce lu ñu war a fan et